Euh, dafay am loo xam ne mënut a ñàkk. boo dajalee aw nit muy bis boo xam ni damay bëgg sama waxtaan na ñu déglu ko su ma paree Modou Galas Mbaye lay jox mu jàng waxtaan wi dafa nekk loo xam ni ci lu mënta ñàkk ci bis yu mel ni ci la bokk waaye bala maa dugg ci waxtaan wi dinaa saafoonteeg ñi nga xam ni ñoom laa tudde seen waajur waajuru baaxu guddi gi muy njabootu alaaj Sëriñ Gueye Badar wax naa ko di ko waxaat maa ngi jiital ci nuyoo bi sëriñ Cheikhouna Gueye mi xalifa alaaj Sëriñ Gueye Badar yebal rakkam ji di sëriñ Moustapha Gueye ak i rakkam di sant soxna Ami Gueye Male ni Ibrahima si sant ñëpp nag jërul ma ci jaaraat sama kàddu la waxe ku fi kilifa te jaar fi rek di autorité jaar fi it ne Ibrahima Cissé nuyoo noonu laa la nuyoo waaye wax naa leen li tax mu tudde ko jàmbaar ji li tax ma tudde ko murid saadix bii li tax ma tudde ko rijaalulaahi bii dama dund ak moom xam ne ñi seen xol ñi seen xol lekk ci ci dëgg dëgg dëgg Sëriñ Tuubaa moom ci la bokk ndax aw tur baaxoon na ñu di ko tuddee nit baax na waaye mu ngi baaxoo ci ki liggéeyal yàlla ba dem nga tudde ko doom ngir barkeloo ci aw turam waaye dina baaxoo ni ci jëf ki jëfal yàlla lu ñu gërëm ba ñu gërëm ko nga tudde ko bis ku fi tudde bi sëñ ma sàmba dégg la moom ku fi tudde bis maam Cerno Ibrahim dégg la booleeg moom te ñooña la def li kiy def day naqari dégg nag yonente bi salallaahu alayhi wa sallam moo mujjee ñëw waaye lu ñu bind moo ci gën ca waxtu wu mu ñëwee la seen bàyyi daana wax naa otey tey ñoo daq yu démb yi roplaanu tey ñoo dàq ñooy daq yu démb yi lu mu mujjee ñëw gën a sophistiqué toog nañ mu ne ma jaww ji da ngay xool bu fa sa bët yam keneen xool bu fa bëtam yam keneen xool bu fa sa bët yam jaww kenn mënu koo jeexal te yàlla romb na jaww ji kon sa baay su ma ko tuddee bis barke Cheikhul yi yëg na ni tudd naa ko bis xat yi yëg na ni tudd naa ko bis sa kaw ndax bis bii wax naa ko ñii bi ma koy tàmbali jabar fekkuma fii Grand Yoff doom judduwul taalibi ñëwul seen baay bi may fekk ci néeg bii mat la épouse laa yor kër ba may gani si waajuru kii wu jigéen la àndal ñëw gaara marché bis bi ci dóobaali gi daal ni njaay yóbbul toog ci néeg bi ni ma tëjal ma bunt bi ma tëjal ko bunt bi diggante trois heures ba cinq heures mu ubbi mu summi mbubbam dese dese li mu it daan defee wi ko kaala gi benn bay la jàppoo fadru wala wana fu jaay fadru wala wana fu jaay fadru wala wana fu jaay di ko baamtu ba ma trente mille tànk jër ci biir néeg bi bàyyi faal yu kuuru mu leen jëmm jii ma tax a jóg Cheikh Fall la ko tànn ci nigum ndeyam te boobu waxaguma ni ko sama maam moo njëkk a fendal Cheikh Fall jàpp góor sol ko leer xol bu fees muy bëmbee bi ma koy xam ensemble jin parka la sol ay dog sayit taxaw mu ba ñu jàkkaarloo kër ma Masata Jaxate la ma xool wax ma la may wax yëkkati carte yu si dem jox ma keroog ba ma koy seeti këram maa ngi ko fekk mu sol mant bu weex manto bu ñuul jiital lu weex ca biir waaye li may sol jën parka barke Cheikhul Khadim ba ma ne jàkk jëm xam naa ca gaañ la bokk loolu moom ndawaalewu ma ko moom moom yàlla moom boo ko yoree ma yëg ko moom loolu na man la concerné nag moom ba ma ñëwee këram benn xisalaat bi muy nettali mu ni Sëriñ Tuubaa ku mu liggéeyloo ba la wane escorte bi ka daan nga seey ma daanu jël la mu jéggi ma dugg néegam teg bànn bàyyi ji bi topp yaa seydi mu fereñkulaayu ma xool ko man sérif laa gis dama xool maa jimi sérif laa gis muy toog di wax ñu waxtaan ba ci yàgg mu yëkkate la ma yëkkati jox ma ko ma mel ni ko yenoon yenni ko waaye géej géeju mahabati cheikhul xadim sa bàyyi mu mu ci dëdëm judduma ci ceddoo sama baay samay maam ay wàll yu la ñu sama maam Cheikh Fall di ko gërëm sama maam moo njëkk liggéey Sëñ Tuubaa lal teg ko ci saxaaraay mu bu Tuubaa lii du ay tandoos dañ maa fàggul loolu moom musuma ko ko wax mun ma ñi sëriñ daa di frenkolaayu daa di ñi sëriñ Tuubaa déggal dégg leen wax ji de ñi sëriñ Tuubaa di liggéeyloo ci yow man ci laa bokk amul ku fi doon président de la république te professeur jàngalu la mun ma ñi sëriñ Tuubaa di liggéey loo coow man ci laa bokk wóor na ñii wóor na ñoo ñee ab sànq lañ ab sànq lañ bëgg a dox suñu diggante mu fi taxu sànq lañ bi sànq lañ bi dugg maa ngi toog di xool mun ma sa waajuru jigéen dama ko bëgg a gis ma ñu ko sama waajuru jigéen mu génn góor su suukar jox sama yaay ni ko damay barkeelu ci yow yow war ngaa mën a jur ca ñooña kenn barke suñu tool yi la ko wax war ngaa mën a jur ca ñooña kenn kenn àdduna kenn ma seen bàyyi du kenn ku ma booleeg moom amul ku ni sëñ jaxate maa ko booleeg sëñ Gueye Badar ma ànd ak moom mosu ñoo waxtaan ci ismulaay arzam man wax naa leen sëñ Mourtala seexalu ma sëriñ Saliou seexalu ma mais yàlla baaxal na ma na leer na xanaa ko am sa addiya jox sa sant Mbàkke kuy wëlërante ku wax ñëwul ñu wëlërante waaye sa baay damaa ne gam-gam nelaw ñoon ma ko ci kër gu mag ci assemblée générale bu sol manto toog ci biir mu sol manto toog ci may jóg mu fi taxuma sëñ Modou fi taxuma ma xam ne sa baay ci nguur gi la bokk xooluma ko ci seex yi xooluma ko jëwaay baayam man xaw ma badar xaw ma maami badar man lijjantuma loolu la ma lijjanti xol bu alaaj sëñ ngee la xam ci sëñ Tuubaa kenn kon am nga dëkkam maam kenn kon am na soo maam def mbir mbir mi loolu mbir mi lan sëñ Bamba la fii la badar buñ ko mënee xëcc ba mu tàkk ba dootul fayati kenn yóbbu fuur kul sëñ ngee xoolal alxuraan ñëpp ko mokkal yoonu mun soxluñ ku mokkal ku mokkal lañ soxla waaye egg ci fannaawu jeex takk soxal sëriñ Tuubaa lekk moo yombul waaye wallaay asim ñun aras kuy dem aras xaaluñu loolu maanaam ab yonent yéemuñu ab wàllu yu yéemuñu xam nga ku ma yéem wakkiirlu gi mu wakkiirlu sëriñ Tuubaa mu ma yéem ci moom mosuñoo waxtaan ci wàllu bàcc maag moom mosuñoo dugg ci yooyu mukk su ma ñëwee daal nuyu naa ko mos nañ ànd di dem Dakar yoruma dërëm mu wàcc ni ma fay oto bi te man yoruma xaalis mu wàcc dugg sànni ma fayal oto bi fi ma taxaw ma ne waa xare bu ñëw taxaw ci benn magasin rek am ko ma fa romb ñu joxal ko sëñ bi abal ma foofu junni dama ñëw Dakar ma ne ah sëñ bi jox ko ñaari junni ma fay taxi bi. ànd nañu ma ak moom yaraax ñu dem ba ñuy dox ci foofu donc sëñ bi loolu leneen la toog nañu mu ma doom nga sama kër taaw nga sama kër waa ku ci dalli sëñ Bamba yi la bokk ki naa maay rasaayil muxtal fadaayil mu xiin maanaam si baax dala fayi maay rasaayil boo ko déggee maay rasaayil ci darajay Moustapha la ñuy fare caay caay yi muxtal fadaayil ci darajay Moustapha la ñuy xëcc ngëneel yi mu xiin maanaam si te darajay Moustapha la ñu koy wàccal kër yi waaye baax dal afayi nag bàyyam ne nag grade boobu yonent bi moo ko yoroon waaye bi mu ñëwee la ko suñu tubaab rafetal jox ko ndax ndax wax loolu da xam fan la tollu bay sa baay bu toogee naa ñeenti ñànk jamono ñeenti ñànk jamono bu ñu woon sa borom ne àdduna tukki bu ci àndul du sotti kon a na fu mu ne. ñeent. kon man tuddewuma borom juddu bis tuddewuma borom xaalis bis dama ko tuddee la gaayee def la def ci ñun yónni woon na bokk. wax ko nag du wàññi ci li ma Sëriñ Tuubaa di liggéeyoo dara bi may ñëw fii Grand Yoff di tàmbali bis bii di aw nag man kese kese kese na fallu ma ko jox. ba may rey nag yi fii ci àngal bi fii bay ba ñuy fees billahi lazi laa ilaha illa huwa ma tànk ak ginnaaw bi jox ko sa waajuru jigéen te nga génn ndawalu sëñ ngay badar xam nga luy kéemaan gi tey damay pare añ bi pour mu dem euh, pour mu dem pour mu dem géej ma pare añ bi am ko war a ñëw indi may xéwalu boisson mu xaw a yeex ma ne diw nga leew ñu jëli boisson bi mu xaw a yeex ma xaw a tàng parce que añ ma pare na sëñ bi diw diw dafa am lu leen boole rek. dëgg fi ñu taxawee doomam Serigne Fallou li ma soxla woon nekk da moom lu ma indil addiya dugagul ci kër gi de te man lu laa bëgg a jëndi sëñ Fallou ñëw ñu ma lii dama ko siyaaree mën ko lii de moo jëm sa baay. <laughs> te bi ma commencé def bi bi léegi sëñ Fallou ngi fi door a teg tànkam. ñaari keese la ma jox ma teg ko añ ba ni ko yóbbul Géejawaay kon man xam naa li ma Sëriñ Tuubaa booleeg seen bàyyi seen bàyyi su ma ko waxee dama dama ñàkk ngoro man ki ma gëm wóolu la yaakaar la mooy Cheikhul ma man seetuma wàlliyu seetuma sërif sërif loo baax baax yonent bi tagguñu ko ci da da deret garaat la Macky Sall mi li tax mu téye nation bi la mooy Sénégal est-ce que jaww ji la drapeau bi la di waa drapeau bi lu tax ñu bàyyi tur yëpp bis du ñu tur Macky Sall institution bi la téye kon garaatum xaatimu nabi wa imaamul mursalina mission la waaye Cheikhul Khadim nag moo ko téye te nee na mu génne ci loxoom l'islam de nation mission la dara jógu fi ru yi mën nañ jëm waaye jëmm yi ñu taxu amul lu yàlla lu bind lu baax mais mënoo gëm lu ñu la wax ci ñuy démb ñu gën a eskay tey tey nga weddi ko kon li fi ne ñàkk gëma fi ne ak ñàkk xam gëm yàlla yombul gëm naa yàlla ku ne nga wax ku mu neex wax ko waaye listin amano wa haajaru wa jaahidu fi sabilillahi fi amwalikum wa anfusikum asamu darajat indalaay ulwaayikum faay sono loolu wax ko rek taxul nga bokk ca kii xalaat nu mu demee makka ay kii xalaat nu mu yóbbu ni ñu makka bokkuñu dama digg ñu diw tabax na jumaa jumaa tabax ko day noonu Serigne Cheikh Saliou li tax muy tabax juma daa xam ne fu mu tabax juma ku fa julli yàlla nungul la ndax wërsëgu fu muy jóge waaye juma du ko jóg tabax ko gaa yi ngi def lu garaw ndax juma boo ko tabaxee ku fa julli mu yàqu wala nga def ko loolu yaay gàddu balaa bi waaye sëñ bi man ma est-ce que mën naa jëkk ja tabax préfecture fii sa ñaan ko dama ne est-ce que sañ naa tabax fii lu tax bokkuma ci état bi yow su julli wéragul ngay tabax juma doon jullit ak doon jullit bokkul ku mu neex nga ni jullit laa waaye Moustapha waa këram laata noonu doon jullit iyaaka naaxbud yàlla dégg na ko waaye iyaaka na seenu xaw na xaw xaw na ñoo toskare yow la ñuy dimbali ko ku neex nga wax ko waaye nag yow la ñuy dimbali ko te ñu may woo xiif ñu may woo maral mbootum na say nu muy ñëwee ci yow sa nga mu bàyyi kenn du la di fay gëm yombul ponk mu jëkk bi rek mënoo ko matale waaye yow al imaanu billaahi wérul waa naka la iqaamatu salaat di wér bay taawu sakaat di wér ba so ba so ramadan di wér wax jël bayti di wér fondation baaxul nga bëgg a dalee dama ni fondation baaxul di nga dalee bala ngaa dugal immeuble nag te dalee ko bu tay mu seen dama ni militaire du sol sotérie sol kab ni militaire la da ngay recruter ba apte ñu def ko ci dossier ñu xam ne militaire nga gis nga tabaski gii bu ñëwoon ku rey sa xar jégg ko man kay maa la ko wax bu ñëwoon ku rey xar mi pooju ginnaaw bi di ngay jëfandikoo gars bi di jënd sa xar l'islam ñaru leen bakken rek bu tabaski jotee moom ku ne wane jom jaamu yàlla yoo yoo xam ni du yëfu du yëf yi mais dëgg-dëgg mbir mi suñu borom la ak rasulullah ak cheikhul xadim ak gars yi kon seen baay waxuma ko pour la leen neex waxuma ko pour ngeen jënd fi taxu damaa xam ni seen baay sama xol moo ko yëg seen tuba dama ko dund ba sëriñ Touba yi yëg ni dund naa seen baay li may wax nag seereel naa ko bis bii nga xam ne dañoo toog ca ca géejawaay tam xarit jot sëñ ngay julli yor yor ma ne bëgg def ñaanam yooyu ne ma sëñ Ndiakhate dama ci pantre bi loolu tey laa koy door netti ak sama ñaq wi ak sama kaali gi yàlla bu ma egg suba mu ni ma eggal ci pantre bi comme waxtaanam dafa maa neex ma bañ a dem mu tax ba mun sëñ Jaxate eggal ci pantre bi néeg bi mu nekkoon ci suuf pantre boobu mos sama maa wax ne Abdou Diouf de saa bëggee falu dina dina ma fekk ci pantre bii bi muy bëgg daal na gisuma ko ci pantre bi ñu toog mu ne ci pantre bi ma taxaw rek damaa bëgg rek waxtaane mun ma sëñ Jaxate Jaxate eggal ci pantre bi ma dem toog ca pantre ba ca déwén ga ma wàcc 11 ci guddi fekk ko sama suñu kër mu toog ak sama diggante sama ñaari waajur yor yor kaamil bi di waxtaan ma ñëw mu ànd ak daam loo may ñibbi mun a jaxate kay gunge ma ñu dem ba ci man ma yemal foofu te waaj ma ni ban waaj ci déwén sa laa teg fii ca tam xarit ga kon loola moo ma wax ne génnul ko cëram kon quatre-vingt-dix-huit la ba deux mille dix di ñaata man fa gaañ a ànd ak seen bàyyi ak fu ñu ko yëgee man xoolu ko foofu waaye man taalibe Cheikh Mouhamadou Mourtada bu wér laa sëriñ sëriñ seexu Cheikhouna Gueye wax na ma moom ni ma bi sëñ Mourtada génnee léegi àdduna gisuma ko fi keroog bi nga ngay waxtaan ci Badar laa gis Cheikh Mourtada nekk sa kaw tiim la ma xam ne xalifa bu wér la samp nañ ko nañ fonkante ñu nag yéen nañ jàmpante ñu nag yéen ndax ñoo bokk lu ñu see doggul li xew ci jamono bu ñu ko dugal suñu diggante lu ne yéene naa leen ko lu ne bëgg la naa leen ko nañ leen fonkante tey demlante tey gënte kon seen bàyyi sant naa yàlla bi ma yàlla boole ak moom ñu xamante toog na néegam def nii tànkam nii ne ma dafa am lu ma xam ci sëñ Mourtada waaye dafa am lu ma xam ci yow de ne ma dafa am lu ma xam ci Cheikh Mourtada waaye dafa am lu ma xam ci yow man alali Cheikh Mouhamadou Mourtala man dañ may liggéeyloo barke Serigne Touba Mbacke taalib yi bu leen neexee nañu wuti beneen Serigne xoolal beneen Serigne jébbalu ci moom xoolal ñu ñu àndari ngir Serigne bi. Ndakaaru kenn da laa xam dinaa fi dugg biroom muy kee amul bis bi amul kenn ku may dem ci yow lépp ci barke Serigne Touba laa ko def aw ma xaalis Pape Madiop Mbale ren moo ni ma sa bis bi danaa ci taxaw lépp maa koy def ci bâche bi ndax loo gàddu ak loo gàddu bokkul. kon waxtaan yi dama lay santante ma ak yéen bu ngeen demoon ba lu ngeen mën a doon ngeen xam ko du ma yéem xëccal nañ leen bayal nañ leen góobal nañ leen defal leen cere ñeex sif lekk ci des kuy rooti ci ruy du mbedd nag su robinet lay tëj yéen am ngeen rub wax robinet day sax day tëj yéen dañ leen a bëttalu teen ba ngeen set ba ngeen sottee baax indi ndox loolu yéemu ma di waa ko taxaw ceer na ginnaawam ceer na ko ko taxaw ginnaawam maam Thierno Birahim kan moo ko taxaw ginnaawam waaye ni sëñ Tuubaa sëñ nu ndumbe dañ ko liggéeyal seen baay ko koo taxaw xam ko nag am ko nag téye ko bokk nañ ci personnalité am ko téye ko bokk nañ ci personnalité man tuddewuma autorité bis lii gars yi def mën naa ko wallahi asim kon fii fees dal mën naa bind lettre Marème Faye Sall sax am na du ma dem a gis ko ma am bi mais ñoruma ndox doxuma foofu ni ko gaa yi defee mën naa ko waaye dama dama ko sañut gis naa ko ko indi lettre mu xotti lettre bi kon yéen doom moo tudde baayam bis doom mooy sant baayam doom mooy euh, euh, euh, wax lii baayam man wóor na ma fu mu tëdd am na mbégte ci àjjana am na mbégte te firdaw si ndax naa ma nga firdaw si kon Moustapha waxal ma Cheikhouna ma ngi fedd di ko leer gi ngir jëm yàlla ngir jëm rasulullahi bu leen ma jàpp mukk kuy taxawaalu bu leen ma jàpp mukk kuy kuy kuy kuy dóor yi man nekkuma foofu man nekkuma foofu xajuma ci tappale doxuma ci waxuma ci boo ne ma mbàkkee man la jaxate dugguma ci yooyu man bul ma su jootal sama yoon nekku ci man waaye man xam naa ne ki may téye téye na ma te du ma war barke Serigne Touba fii laa déggee defal nañ la tabir la naa umra naa shahid la naa bada naa wóob la naa rus taw tawfiq yaawan étage bi laa déggee doxaaw istijaabaan laa étage bi laa déggee kaala nañ la ca kaw ci muslima nga bokk loolu dégg naa ko sama kër gii vingt kon làmbutuma dañ maa làmbal man mokkuluma damaa mokk ku yàlla gërëm boo nee jàkk dara tam xam ko ba mun tax xamee ginnaaw jigéen ëmb na jarata wax bu kolom bu kolom waa jigéen jom bu bay bëgg sëñ daa ëmbagul ko mu buusi ndese ko ñun la wusi na nga ne ëmbagul loo bëggati man xëyuma gontuma jaayuma ma fan laay jëlee jéem ko lijjanti xam man a jéem a lijjanti fu may lijjanti rek ndakaaru boobu foog a jëlee man na 6 mois aw ma fa soxla man sëñ bi rek. kon bis bi nag ki ma ko tuddee woon li ma ci bëgg am naa ko luñ ci kam aw yiw ndax daana wax naa bi naa hakim wax nañ ko ko ñettaat liggéey ko. tabibinal xakim mooy docteur bu tedd bi nee na doy nañ ko ko ñett liggéeyu kon seen baay dama ko maîtriser dama ko xam dama ko dund dama ko bëgg nag sama idole la foofu rek laa nekk kon damay waxtaan ci kanam dama doon saafante yéen ci mbégte dama doon saafante yi ci bokk ndax jamono daa am lu mën a yàq diggante nit ñu bëgg ñu ànd bu rafet te dañuy yàq te xel daa bon te ñett ngi ne daa doy war iblis bakken àddina da yàq lu bari te xel mën naa yóbbu nit sawara xel mën naa yóbbu nit àjjana ki ko seede di nitu dëgg daa koo xam te li muy wax ni mu toll ci moom noonu la coono bi toll nit bu dee wax lu mu gëmul jëng jëmmam du yëngu ndax ci tuñ yi lay jóge néewul ci dënn bi waxi dënn boroom da koo dund moom góor yàlla la wax na dëgg te ku ndaw mooy xam ku mag ku mag doo ko gestu bi ko sa baay yóotoo bu ko joxul woon loxo du ko yóbbu la tax muy ndaw nag xam sa baay ni mu ko xamee mel ni ku ko bokk ak yow ci la ko sa baay dimbalee moom ku naqari àttan la ndax li mu yor du jàng loolu def ci moom la damay wax ne ku jàng xam ku liggéey am jàng matériel la boo jàngee ba xam te jaamuwoo yàlla ragaloo yàlla da ngaa xam waaye amoo boo liggéeyee wàll yu baa mu soppal la boppam sotti ko ci yow dangay xëy am amaan na xamoo waaye am nga am am moo gën xam-xam sëñ Tuubaa daa njëkk ba yàgg mu ni ko fi jàng andi woon jëlal say àlluwa te wuti foo ko defe ji yàlla tegtal na ma yoon wu gën a gaaw jàngi aayaak di xëy di bind ñu nu ngoo toog toog mu duy leen ban fees bu xalima gi daw ñu di ko dégg di ko gis ñu jàng yëkkati toxoo fi sëñ bi dem jàngi yow ku la dégg te am dara dina xam ne yaa ngeeg dara nit du xam ci nit lu nekkul ci moom bu bu dee wax may dégg may déglu di dégg li muy wax meñ ci man moo koy laal muy jóg nopp lay déglu xolay dégg te xol du dégg lu mu ëmbul ñoo ngi ñaan sa digganteeg moom mii rakkam yi mu yàgg man de gëm naa li nga wax ndax dama laa xam doo nitu caaxaan te gone guy tappale bu la bu la siinee teggi ndax xam na ne bu ñëwee yeddal ko yet mooy yeddeel ci sgol asgor mën nga koo dóor te yar du ko laal ndax boo ko waxee boppam mu xam ne li mu nekkan baaxul bu wàññi ko caaw nga ko te dóoroo ko maa ngi lay jégalu nag damaa war a teel a ñëw waaye ma saalikul jinaan maa fa ne te événement fa ba fa am ñu tuddee ko Cheikh Ibra su ma fa nekkul woon su wéyee dina am kersa maa ngi ñaan suñu borom jataay bi yàgg ngeen yàgg fee ñëw yàgg du fee fekk te sa bàyyi yàlla dolli ko ay leer te bàyyi leen fii barkeem lépp sotti ci seen kaw ngeen ànd ak moom wasalaam. Sedih.